mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV maa leen di bëgg di leen ziar di leen ñaanal jàmm ah, di saaku si yéen tey nag ginnaaw bi nga xamante ne nii comme ni mu leen ko waxee rek Reug Reug defoon na benn combat MMA fa nga xam ne moo doon ci Singapour moom ak Alain Ngalani gis ngeen am na ñu jëloon ay sénégalais ñu waxoon ci combat bi yàlla dogal mu ñëw yàlla may ko ndam lu leer naññ am na tamit yeneen ñu si jëlaat waaye kii tamit defe naa ne bras droit am muy Cheikh defe naa Cheikh ak rëg moom suba ak ngoon la guddi ak bëccëg bés du fa jaar moo tax nag tey ñu ñëw seet si gisaguñu rek mu ngi États-Unis wala Singapour moom lu mu ñu ci mën a jox comme ay nouvelle nu mu dundee combat bi ndax combat bi am na ay butéel parce que yooyu yëpp jaar naa lijjanti ah maa ngi lay bëggee seex waa ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Seex na Amadal Xadim xaadalaahu loxo mataara loxo di nuyu waa Sénégal yëpp ku si nekk sa tur sa sant ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax parce que gis nañ seen taxawaay si ñun di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ku si nekk rek ñu ngi fekk fa nga nekk ñu nuyu la di la di leen sant nag bu baax a baax a baax di nuyu tamit suñu mbokku mbëri parce que gis nañ seen taxawaay si bés bi bu baax xam nga ñaanal nañ ñu defal nañ ñu ay vidéo ñu bëri ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di nuyu tamit waa simple ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk simple bi c'est la famille parce que des fois nit dala si woo sax yow sax xel lay dem fu sori parce que da xam ne kii bu dee benn jour sax am ngeen ko saan gu metti l'histoire retiendra xam nga te teewul dañoo yëkkati seen téléphone di la ñaanal ñii di def ay vidéo di leen ñaanal xam nga kon ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm nag population Sénégal bi de zéro à quinze millions d' habitants yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax. am na solo Cheikh mm, euh, gërëm bi xam naa si dinañ si ñëwaat waaye fi may duggee ak yow rek mooy li nga xam ne nii moom mooy diggante Cheikh ak Reug Reug parce que Cheikh ak Reug Reug bëgg nanga nga cofal ma tuuti ci li leen boole. Cheikh lu ko boole Reug Reug ay mbokk lañu dañoo bokk dëkk caaro yi wala Cheikh waa fan la ak lan moo ko booleeg Reug Reug. non man waa Joal laa man Joal laa juddoo falaa yaroo màggee Medina xam mais rek li ñu boole maanaam suñu borom moo ñu boole parce que day am ànd yoo xam ne moom yàlla rek mooy mooy xam boole quoi maanaam suñu borom moo ñu boole ñuy daja si làmb yi xam nga ba benn jour mu ne ma seex ñëwal suñu kër ngay entraînement soo paree ñibbiwaat fekk boobu ñëw na suñu kër Joal def fa neuf jours ñu nekk fa muy ñibbi si ne ma ñëwal ñu dem Dakar nga entraînement ñu ñëw fi xam nga après suñu borom boole ñu ñuy ànd di ànd xam nga ba affaire yi wéy daal. lu mu soon seen kër. waaw suñu kër bi mu fa ñëwee boobu làmb la demoon jonwa fee rek jonwaar waaw jonwaar la demoon làmb fekk boobu doon nañ gisante caalaan ak si làmb yi quoi mu ñëw jonwaar bëre si après si la ñibbi si woo ma ne ma maa ngi nii Joal ma ne ko ah mu ne ma waa maa nii di dem seen kër ma ne ko ok baax na maa ngi ñëw mu ñëw fa ñuy ànd di dem entraînement comme mbëru simple yi niñ koy defee rek xam nga loolu moom yàgg na si mbër dem benn dëkk toog fa campé fa parce que foo ngay gën a yëgee saw làmb waaw ñu nekk fa nag après si la ñuy faral di ñëw Joal di dem Caaroy affaire yooyu noonu ba c'est la famille maintenant. Mhm. Cheikh doon bëre. waaw man dama doon bëre. foo doon bëre ban man nekk naa Medina Ndakaaru parce que boobu dama doon jàng métier foofu. ay dàll quoi. cordonnier cordonnier waaw. après tonto ma bëre fa benn lamb fon yi rek si sanca ba bi foofu. Mhm. ma bëree fa tontoo kati gis après si la ma ne kaay del ñëw fii di bëre. su cinq heures jotee mu ñëw wax sama patron mu may bàyyi may bëre xam nga après par la suite la commencé di bëre si aare si làmb yi ay estaat xam nga si àll yi affaire yooyu noonu ba bëre naa ñaari combat arène tamit. Cheikh léegi mu mel ni kon bëre ba ak lépp parce que am na ñoom dañ leen léegi Cheikh sorcier bu mag a mag la. non man du ma sorcier de nit la man la koy jiñ nag. non du ma sorcier. Hmm. parce que nit tamit xam nga mën a am rek. destin daa am solo si doomu aadama tey nit mun naa jaar fii fekk ëllëgam suñ borom tarasel na ko leneen parce que man <laughs> tolloon naa moment yoo xam ne sax wallaahi damay foog ne maanaam roi des arènes màgg ma koy teree jël barke alxuraan xam nga ba tey jii ñu bëri boo leen waxee sax dañ naan non seex mi si ginnaaw rek sax moo dàq bëri rek xam nga fekk demewu fa noonu suñ borom mooy dogal ay mbiram xam nga parce que rëg man bi may ñëw di ànd moom doonul ay mbiru ànd ak moom si ay gàllaaj moo tax ma ànd ak moom affaire yooyu dañoo ñëw di ànd en tant que mbër ak copain rek xam nga ñu dem ba si biir affaire yi ëpp ñu loxo ñu toog waxtaan si ku nekk xam côté bi ngay jàppee rek ñu travailler dem. Mhm. léegi nag fi may ñëw ci rëg mooy léegi rëg ak MMA bi def na ci benn combat gagné gaa yi ne loolu dafa yomboon ñu indiwaat beneen nit boo xam nit bu ñuul la di doomu africain di camerounais combat bi noo ko dundee avant combat bi. non avant combat bi moom niñ ko dundee comme nit rek xam nga ñeewantal moom dina am si loo gis mais tamit nit gëm-gëmam da ngay xam ne kii dafa gëm benn affaire parce que sooy xool ñun combat bi mun naa ne xam am na yoo xam ne avant combat doo ko mun a leeral mais su passé rek da nga koy da ngay mun a leeral nit ñi xam xam nga combat bi sooy xool diggante biñ ko jël matul sax. un mois mat est que mat na sax vingt jours wala vingt cinq jours. waaw ah, combat bi mag ngalan combat nii. Hmm. waaw parce que sooy xool benn jour la quoi man ak Reug ñu voyager ñëw parce que boobu doon nañ am ay lii layti parce que MMA bi sooy xool layti lim si xam ñun ñëpp xamuñu ko si des fois daf ñuy woo sax man ak Reug ñu ñëw këram toog mu ne ñu seex lii ak lii balaa moo àggali sax dama ko naan non layti yow da ñoo yab xanaa du lii nga ñu fi wooye ñu lii xamuñu si dara loo si baax na hmm. ba voyage yi ñëw ci wësa mu woo ñu téléphone ñu war a dem jaale ji bilaal Baas quoi suñu benn commin ñu ngi koy nuyu au passage ñu koy jaale ji biñ de yéegee ba si payage bi si la maa ngi toog si kanam rek mu ngi toog si ginnaaw mu ne ma nii mu ne yow di nga mën a xeex la le le lan le vingt le le vingt deux janvier xam nga. ma ne ko waa man dinaa xeex dinaa mën a xeex quoi parce que boobu pour man man lay waxal sax mu ne ma nii sa waay MMA woo de waxuma ak yow Omar Kane mii laay waxal xam nga. Ah, Leyti moo la wax lool Leyti moo wax lool mu ne ma yow MMA woo comme dañuy mbalagante man ak moom après rek ne ko waa dinaa mën a xeex mu ne ko sa waxal xam nga après sa waay ko nii dinaa mën a xeex kay ma ne ko waa luy teree ñu bañ a xeex affaire yooyu noonu mu ne ok kon baax na si la envoyé gars yi ne leen sa waay d'accord na affaire yooyu. loolu moo andi combat bi boo gisee voyage am bu gaaw bi sax soo gisee ni mu demee voyage bi sax waaju ko parce que ñu bëri ñoo xam ne sax dañ leen doon wax ne ñu ngi dem affaire yooyu noonu sax waxuñu leen ko daa xay rek takk jóg dem. kon daal combat bi pour ngeen signé ko lu gaaw la. lu gaaw la moom franchement lu gaaw la. Mhm. maanaam bi ngeen signé combat yéen bi ngeen koy signé xam ngeen adversaire non xamuñu adversaire bi nag franchement. Hmm. xamuñu ko de parce que léegi moo ma ne moo ne bind ne ma kii la ñuy xeexal ma dugg YouTube si la ko gis moom sax bi rek d'accord moom bañoon na ne du du bëreetee du xeexut ak rek affaire yooyu mais par la suite après rek mais boo fekk na rek dem États-Unis après layti ne ma sa waaye bañ na mais ñu ngi utal rek adversaire xam nga ba si yàgg même pas deux jours après mu ne wax kii la ñuy mujjee xeexal xam naa waaw mu mujjee nangu wax mais moom mës ta bañ non rek moom ku ko gis sax xam ne amul bañukaay moom moom maanaam dafa doon nit koo xam ne tey jii mu xeex ak seex ak mu xeex layti la yemale xam nga moom chaque jour objectif am mooy lenn ku ku nekk si kanamam dalay massacrer dem yoonam mais comme nga koy wax nii mu naan la non nañ ko bàyyi affaire yooyu loolu moom musul am même si làmb sax noonu la mel làmb tey simple bu ñu demee sax day jékki ne seex ana gars yi ñëw nañ ma ne ko gars yi daa mel ni ñëw nañ de <tsk> wala est ce que am na mbër sax mu ne ma barki yàlla gars yal nañ ñëw ndax làmb ji neex moom day si boppam léegi léegi MMA boobu bi mu ko signé nit ñi gis adversaire bi comme ni nga ko gisee ñu bëri tiitoon ci euh, boobu loolu yéen a ngi doon dégg réaction Sénégal parce que ñu bëri dañ ne woon dëgg mii dugg na ci lu mu xamul ah am na ñu ko doon wax ah. waaw loolu moom mënul ñàkk xam nga parce que bu dul dalee rek seen doom la comprendre nga seen jarbaat la seen rakk la te sénégalais moom lu ko waaye mën a waxal xam ne sot moom daa bokk si mbiram. xam nga tey buñ nekkee si biir town bi ñun ñëpp mun nañoo xëcc wante mais bu kenn génnee rek ñëpp koy faral sooy xool maanaam sax day am ba si ñi nga xam ne dañuy immigré affaire yooyu noonu tu tey su kenn nekkee extérieur yow nga daje fa ak sa mbokku sénégalais lu metti metti da nga koy jàppale xam nga tey jii loolu yëpp dañ ko doon dégg mais ñun suñ borom dimbale ñu ñu ba maanaam du ñu concentré si yenn détails yi xam nga liñ si mujjee wax sax am na ñoo xam ne man dama dama voyagé woon ma xëy benn jour gis ay vingt appels ma jóg ma ni waa man sama téléphone bi nu mu demee nii bay bay jóg ba koy xo liyaar rek benn appel dugg ma décroché kooku mu ne ma seex ma ne ko ah mu ma yéen gis ngeen ki ngeen jël ma ne ko waa si lan mu ne ma non seex bàyyi leen affaire yi quoi xam nga parce que gars yi dañ lay ñeewantal xam nga affaire yooyu mais après moom da au fur et à mesure ngay dem da ngay xam ne kii mu ngi conscience tranquille am xam nga ba ba bi ñuy ma koy tooñ quoi mu ne ko rëg waa ji comme ki weewoo ma jéem a uti xewer rek mm. xam nga mu ma seex mu ne ko ah mu ne ma da ngaa tiit ma ne ko tiit man mosumaa tiit mu ma billaay combat bi les yi di xam kan mooy rëg rëg te moom chaque combat loolu la lay wax lu mu diis rek ko waxee danaan la combat bi dañuy xam man maay kan. Mm-hmm. ok léegi combat bi lu mu diis diis am na ñoo xam ne tamit yenn sénégalais yi am na ñoo xam ne dañ ne waa ji da ngeen laal ci mystique. yooyu yëpp am na ci est-ce que mystique daa dugg ci yu mel nii. non franchement man gisuma si mystique quoi. c'est ah, leen di jég. parce que tamit xam tey maanaam rek nu mu tudd. <laughs> nu mu tudd <laughs> Ngalani waaw gis nga moom xam nga xam yi moom si côté boobu ñoom suñuy doomu bàjjan lañ ba démb rek. si guddi xam nga barki démb ñu nag ñoom man moom ak léeti ñu ngi wax appel vidéo xam nga man ko sa victoire du am valeur Sénégal ndax ko daan wala koo gañe rek <laughs> ñu ne nag kaa jekku xam nga mais nag franchement moom doon na nit koo xam ne moom lu mu am si àddunaam gëm-gëmam moo ko koy may xam nga pour diir vrai quoi lu mu am si laay fam rek gëm-gëmam moo ko ko may parce que sooy xool maanaam jour biñ ne suba la combat bi comme jeudi parce que boobu maay tëdd ba ay quatre heures du matin benn numéro woo ma ma décroché mu ne ma rek nee na nga nekk en ligne après si laa nekk en ligne man ak moom ñu ngi waxtaan di waxtaan ba si yàgg mu may wax wax yoo xam ne sax lool sax bo ak sax ak làmb ji ma jékki ma ne ko rek yow xanaa waroo faayet naan ma seex kooku arbitre sifflé ko fi bàyyi. xam <laughs> nga bi benn bagage. non yóbbuwul dara xam nga nag joxe ko pour dire vrai joxe koy butéel mu yóbbaal bi muy dem. a <laughs> ah, man de daw ma maa ngi fi. non yow la non yow demoo mais say bagage de non xam nga xam tey man mbiru MMA lu bëri man ay fas ak yooyu boo leen ma laaj da ngeen may sonal kooku xam na ko de boobu lay ko yor parce que man suñu waxee sax léegi dama naan non yow MMA sa yoon newu si xam nga su ma ko naan léegi làmb ji mu ne ma faal man sama yoon newul si làmb de man MMA laa lijjanti sama yoon nekkul si làmb comprendre nga. Mm-hmm. am na solo. mais victoire bi ñu bëri ci liñ ah, wax dañ ne waa dafa abandonné. yow rek ban information la la jox ci ne noonu la daane nan noonu la gañee waa parce que affaire moom soo xool sax dafa xaw gaaw si man parce que moment bi ñuy couper téléphone bi mu ne ma maa nii di di di dem di fayati ñu toogaat ay quinze minutes parce que ma xool ay huit heures quarante cinq fii si heure Sénégal si laa wax ak coach mu ne ma cinq minutes la ñuy yéeg xam nga ma ne ok baax na dans ay quinze minutes yooyu matul sax quinze minutes. si laay dégganteeg layti ma woo layti layti ne ma non daa mel ni rëg moo gagné quoi parce que daa mel ni mooy bëgg wax ni parce que boobu layti moom doon ko seetaan appel vidéo mais man bi ma ne ko ah mu ne waa ma ne ko baax na diggante bi may génnee sama saak di dem taliba après si laa si laa layti woo ma woo ko wo ñu ñun ñett quoi ma xool ko mu ne ma noo seex waa ji dama kaa kaawa ba ma koy tooj ma ne ko rëg nag lii yomb na yow jékki yéeg wàcc ne ma kaawa naa ko non sa waay man ma la xam nga affaire yooyu ñu mbalagante affaire yooyu mais affaire bu gaaw moom franchement. kon da ko dóor mu daanu. non da ngaa kaawoo moom. Mhm. léegi victoire bi nu ngeen ko dundee. waaw victoire bi sant rek sant rek parce que tamit àdduna moom ñun lu ñëw rek dañu dañ ciy sant suñu boroom xam ne moom ndam nit moomu ko suñu boroom moo ko moom te tey mënoon nañoo jox safaan wa comprendre nga joxuñu ko mu jox ñu ndam kon dañ ko ciy sant bu baax a baax a baax bii nag yàlla daa dogal bës bu nekk dina am ku ko moom mais bii bésu layti la waaw parce que quoi qu'on puisse dire tey lu mënoon a am dañ naan moom moo ko si dugal comprendre nga tey li ma wax nii wallaahi sama xol ko jëlee des fois dama doon dem ba ba man sax damay sonn daf may leer na man damaa sonn mais su ma xalaatee léyti rek non damay damay jóg renforcer jiwaat demaat mhm. xam nga ngir lan maanaam da cee sonn suñu avenir doon nit koo xam ne tey jii mun naa ne ñun ñoo ko gënal ay doomam xam nga parce que Leyti lekkul naanul nelawul ngir ñun tey Singapour sooy xool mook mook Sénégal bokkuñu heure rawee nañ huit heures de temps la ñu rawantee xam nga mais chaque jour heure boo ko woo da lay décroché te loolu neexul ci nit ku yor jabar yor ay doom xam nga vie de famille du ko am des fois mën na rek ñuy dem këram di lijjanti benn affaire ba ay deux heures du matin trois heures mu ñëw taal otoom déposé waat ñu. soog a ñibbi kon kooku lu loo mën a wax maanaam sant ko rek nga mën a def xam nga tey bu ñuy reyante moom moo tax man lu bëri su ma si su ma si dul dugg parce que à cause de layti la parce que damay toog ne lii su ko layti déggee du ma neex te noonu ma mel noonu la rëg mel noonu la dëwur mel noonu la biraan mel xam nga mu doon koo xam ne wax dëgg neex yàlla tey nañu comme ay doomam ñun ñëpp tey bu bu buy wax ak biraan da nga naan biraan sax la gën a miin lim seq ak biraan sequ kaak dëwur nga ni li mu seq ak dëwur sequ ko ak seex comprendre nga yemale ñu ñun ñëpp wax dëgg na yàlla lool moom ñu ngi ko sant bu baax a baax a baax. léegi am na solo mu mel ni kon loolu ànd te yàlla tax moo koy indi léegi defe naa signewaat ngeen yeneen combat. waa signewaat na yeneen combat parce que layti defe naa cinq combat la signé ak ñoom quoi lool moom layti moo ma si ëpp xam-xam. Mhm. mais combat yow yëpp sa dal na ci. waaw parce que non xam nga nit moom lu sa xel dalul rek. jarul nga siy dugg comprendre nga ñun MMA dugg ñu si pour benn affaire boo xam ne dañ siy dugg nii pour la forme wala affaire yooyu wax dëgg neex yàlla champion du monde moo ñu tax a jóg. parce que ñun soo dégloo suñu waxtaan sax nga xam ne ñun ak gars yi wax dëgg bokkuñu sax dimension bi ñuy doxee. Mhm. am na ku ma seeti bëri ki dem Pape Demba Kama kan mun comme moo jiite association MMA bi ne Sénégal moom bi ma ko laajee ci Reug Reug jàpp na ne avenir la bu baax ci kii ci ci ci MMA ak yu mel ni kii noonu jàppal bàyyil loolu loo ci mën a wax ci waxam boobu loo ci gis. waa ñu ngi rafetlu waxam rek parce que man tamit seeraan naa ko quoi dëgg la nag xaw ma ko mais déglu naa ko mu wax xam nga di leen wax ne affaire bi du affaire de seex. du affaire de Diour du affaire de Birane du affaire de Leyti du affaire de moom affaire u Sénégal yëpp la xam nga te nit boo nekkee si benn affaire ñoom MMA yàlla dogal na ni fi la yeneen sport yi mel mun nañ ne MMA melu ko fi xam nga kon nag tey dem nañ ba nit ñi di reconnaitre ne que MMA sport boo xam ne la maanaam buñ ko jàppalee mun naa avancer xam nga ñoom nañu jéem a collaborer ak ñi nga xam ne mën nañ affaire yi wala wala am nañ si expérience comprendre nga tey ñu jéem a liggéey ak ñoom xam nga muy lan parce que nit li nga gis rek si loolu nga mën a jàpp comme rëg moo fi nekk ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp si xam nga rëg tamit su ko yàlla ubbilee yeneen buntu mu xam ne ñii di yëngu si sport bi ay rakkam lañ ay jarbaatam lañ ñu jéem a xool nuñ defaree Sénégal avancé xam nga parce que man foo xewuma MMA man bu dul woon ak rëg sax du ma ko seetaan wax dëgg neex yàlla rëg a tax sax ma xam MMA mm-hmm. comprendre lii wax bi combat am bii passé quoi loolu su ma ko waxee léegi day ree ba sonn combat am bi mu am fii bi ñu àndee ñu dem ba muy dugg après kooku ne pour ñu dagg fas yi quoi mm. may sëgg ko dagg ma ni man daal man comprendre ma lii quoi sama xel laa koy <laughs> nga mu dem dugg après ñu ne ñu ne nii ñu ñu koroosi bunt bi xam nga dañ lay koroosil bunt bi si ginnaaw waa ji koroosi bunt bi jël karnaat bi lonku mani laay sa waa ji na si xamul de nga ah mu ne ko non franchement nag léegi dugal na rek si lu xamul quoi. boobu tiit xam nga <laughs> ah non si comprendre nga mu doon affaire boo xam ne nii mënoon nañ dund ba dee ñun ñëpp duñ duñ ko xam xam ah mais comme suñu borom andi na lii xam nga te si suñu borom si loxo rek la ko jaarale parce que sooy xool maanaam boo bombardier mooy porte bi. fi may jeexale yow nag mooy rek faaw ma cof ci làmb ji seen diggante guy gi foofu moom xam naa du MMA loo may cofal foofu. <laughs> guy gi ah guy gi moom nee na loola nee na rëg moo rëg ñooy combat rëg ak du komba ndax waa ji mag la. <laughs> da ngaa gëmul loolu yow. <laughs> non guy gi moom wax dëgg neex yàlla ñu ngi koy nuyu o passage tamit di ko félicité xam nga parce que bu dul dara nee na ñaanal nañu comprendre nga te kon loolu borom xol bu rafet rek moo ko mën am sa adversaire muy muy yëngu si leneen nga ñaanal ko moom tamit ñu ngi koy ñaanal fu mu nekk rek yal na ko suñu borom defal jàmm xam nga. mais gëmoo ne seen digg moom la mu wax gëmoo ko yow li mu ne seen digganteeg yéen ak moom ay combat. guy gi combat la. yow laa koy laaj. non man dama laa laaj. déet man doo ma laaj kat si yow yaay ngem bërëg yaa lekk avance su guy. gi daal wax dëgg neex yàlla. su ma amee lu ma koy wax mooy. na dem entraîné ji quoi. guy gi moo leen entraîné wul. non eh, bu nekkee day entraîné. na ko yokk xam ne loolu conseil la rek. xam nga moom tamit dam ñuy conseillé comme rak guy gi mën ngeen koo conseillé yéen guy gi jiitu leen ci làmb. waaw mais xam nga xel moom puso bu réer la rek. wala da nga xale da koy for. dañ leen wax da bi jiite Sénégal yëpp suñu papa yaa ko mag suñu maam yaa ko mag dëgg la wala du dëgg. te moom moo leen di jiite. kon kon maanaam xel moom du si cadre kii am mag wala kii am mag quoi. fi may waxe moom yow danga ngaa may source la ne guy gi da entraîné wul wala. ma si dama le ne. bu nekkee day entraîné mu yokk ko loolu la wax li ma la wax kay leer na. bu ko yokkul lu ko ciy fekk. bu ko yokkul <laughs> guy gi moom moo la gën xam tamit maanaam combat boo xam ne ñëwagul. non déet ñëwagul nga nekk fii di. non du ay non lii cof la déet ñëw. moom dina ñëw bu soobee yàlla la guy gi moom. guy xam nga ne daa mel ni fa mu leen làqu soriwul dese. non benn affaire dafa am. guy gi ñi muy duñ ko wax dëgg quoi. lu tax wax loolu. parce que damaa xam na yow chaque jour nga gis benn booyam génn. guy gee man rëg bu ko jàppee da koy duma daan ko rëg-rëg du mbër c'est-à-dire seega xam nga li ma lay ñun maanam suñ borom dañoo mooñaalee benn affaire chaque jour layti daf ñu koy muy maanaam ñun xamuñu di togg di ñëw naan dañuy jimboo wala dañuy poobar wala dañuy masi ñun day day neex rek ñu yàq <laughs> xam nga bu paree incha allah nag buñ ko ko yàqalee moom bu subaa lay comprendre. kon yow booyam yooyu loolu ñuy wax da nga caa ànd. non booyam yooyu dañuy jay guy gi parce que guy gi yow ku la fekk nga naan guy gi moo ëpp rek doole moo ko dàq xeex moo ko dàq bëri yow guy gi bu arbin ne prix boo xàccee mu sangoo loxo yi. Eh, yaa gis lii. <laughs> guy gi duy sangoo loxom. laaj naa la ko. non guy man li may wax ragalu ko di guy gee fi sàngoo ay loxom. xalaat nga mu sàngoo ko ci kanam rek. wallaahi da koy sàngoo. Cheikh wallaahi nga wax de. wallaahi da koy sangoo Cheikh combat bi dangereux na de. si ban de du danser ci yéen. non gi bu demee ba nekk danser si ñun bu yeboo ñu toog yow koo xam ne xëy na ko roi des arènes ñun ñu bëgg nekk roi des arènes bu nekkee lu danser si ñun kay ñun bu yeboo ñu toogi. kon de xanaa foofu moom yow da mu mooy leer na. leer na moom amu si tamit lu mën a am rek mooy li ma la sànq suñu borom moo yor ndam. yàlla nañ ko fekkee tal ko. kay mais bés buñ ko fekkee te tal ko. Hmm. wallaahi moom mu ngi wax benn affaire na bu sumeekoo ba dongali waa kër ñoom rek dinañ ko ne dellool avance bi. yaakaar naa ne nag moom rek bu sumeekoo ba daw ba romb ko gauche droite. billaahi guy gi day daanu te du bëreeku. loolu kay maa la ko wax fii. voilà. kii ji way ngay waxal de. ah ñun tamit caaroy ngay waxal de sa waay. baax na guy gi guy gi guy gi bëri na xale yu mu dëpp dégg na de. waaw mais xam nga rek xale yi muy dëpp mooy xale yi ñu solul yàpp mag rek. maanaam xale bu ñu solul ca ram ba ñàpp ma bu ñu solul ca mbuus ma yàpp. maanaam bëri nga xale yu mu dëpp. ma ne la xale yi yi muy dëpp mooy xale yi ñu solul yàpp mag. te yéen dañ leen koo sol. ah waxuma ko de mais daal moom. ah yéen xale ngeen. <laughs> waaw xale lañ nañ xool rek ba xam keroog mag yaay ñëw wala xale yaay ñëw. looy tàggoo Cheikh. waaw maa ngi gërëm waa Sénégal yëpp. Ah. xam nga. di leen wax ne wax dëgg neex yàlla fu nit nekk rek ñaanal ñu ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm comprendre nga di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di wax di lancer benn affaire nag quoi loolu il faut ma leeral ko tuuti muy wàllu video bi. Ah, waaw parce que loolu tamit sénégalais yi man sonal nañ ma maa ngi jéeglu sax ci kàddu googu mais l'essentiel ka bokk dama naan nit ñi koy laaj te bëri na vidéo bi vidéo bi si xam nga mais tey dafa am benn affaire bu am gis nga nit suñ nekkee si benn affaire tubaab bi ñoom la fi suñu borom teg si wàllu xam-xam bu màcc. xam-xam ñëpp ko am si. xanaa ñoom ñoo seen image kañ. non non da ngay déglu fi may wax xamagoo ko. kon maa ngi maanaam si wàllu xam-xam bu màcc mooy tey si wàllu technologique. Mhm. fi fi tubaab bi toll nit ñu ñuul tolloo guñ fa. Ah, xam nga maanaam tey sooy xool xam nga tey Sénégal munuñ yéex nañoo commencé sport sooy xool lamb lii kese fi ubbi. football kese ak basket mhm. xam nga te tubaab yi bañ ubbee football yàgg na xam nga ubbi ubbi maanaam li sport yi ñu doon pratiquer yëpp mu ngi dox comprendre nga mhm. kon tey ñoom buñ demee bay pratiquer seen sport yi muy dox mhm. ñun Sénégal wala africain yi war nañ see mën a jéem a gëstu xam nga ñi nuñ def ba seen sport di dox xam nga mais du caayan que ne toog c'est normal nag sénégalais yi chaque jour ñu ñuy laaj vidéo parce que loolu lañ xam. xam nga lu ñu xam mooy làmb jot ñu toog seen kër ñu leen di jox direct mbër mi ba biir ba biir stade xam nga nga toog war a dem jékki ne non xaaral sax ma mujjee toog kal si tele bi <laughs> comprendre na parce que loolu dafa yomb xam nga ma leen di wax ne vidéo yi ñii huis clos lañ xeex xam nga te tubaab yi tamit yow huis clos boo xam ne amul amul amul billet amul pay pour vie mm-hmm. du caayan ke ne da ngay da ngay yëkkati say milliards investir ko si dara ba pare ëlbatiku jël kase di rek bazar de ko xam nga mm-hmm. mu doon loo xam ne image yoo xam ne dañ koy jaay ñoom nag ñoo xam niñ koy jaayee naka la xam nga mais jeudi le vingt neuf incha allah mm. si la lépp di génn jeudi bii di jëm jeudi bii di ñëw vendredi vendredi ah, plutôt waaw vendredi le vingt neuf si la si la si la si la lépp di génn comprendre nga vidéo yi vendredi lay disponible des fois nit vocal ma seex doo ma dimbalee envoyé ma ko xam nga mu doon loo xam ne tey ñun bu ñu amoon vidéo yi sax duñ ko envoyé parce que léyti bi combat bi jeexee brusquement lañ ko ne vidéo bi ku ko yor si yéen ba partagé ko dañ leen di alamaan xam nga mu doon som boo xam ne du <laughs> deux millions de dollars moom xam nga ne du du du <laughs> du du weccet lay demee comprendre ñuy wax nag waa làmb ji ñoom tamit nañu jéem a gëstu xool nuñ def ba jaay suñu sport bi xam nga ubbi làmb ji nit ñi mën di bëre parce que lu ñu mën a wax mooy metti na quoi. metti na état bi na si jéem a jàpp parce que sooy xool instant bi wax ji moo ëpp jëf ji xam nga tey coowal wii kuloo suba dinañ ko tijji gannaaw suba duñ ko tijji ba mu gi ñëpp si maar sooy xool sa nit ñi concentré wuñ ci heure bu affaire yi tijjee baax na xam nga nañ nañ jéem a xool nuñ jéem a def. comprendre nga état tamit ñu jàpp si si population bi comprendre nga parce que tey sëñ Saliou Mbacke doon na ko wax di mu ngi tàmbalee si nga bëgg yar koo dundalul xam nga tey nañ jéem a teg loxo si population bi suñ ci tegee loxo bu soobee yàlla ñoom lu ñu wax nit ñi dañ leen koy nangul parce que ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. kontaan